salaamaaleykum mbokk auditeur mi FM dal leen a jàmm seen émission sans filtre jotaay ndaw ñi la fii ci réew mi FM lay amee mercredi bu jot 15h jàpp 16h ni ñu koy defee saa su nekk ñu nekk ci campagne électorale euh, dem ci jongante élection législative yu 31 juillet yu ñu war a amal euh, ñuy euh, fas yéene xool candidat yi nga xam ne ay ndaw lañ invité leen fii suñu plateau ñu fas yéene waxtaane seeni ambition ci biir langum politique loolu waral mbokk yi tey ñu dalal. Adji Diogop Ndiaye moom mooy tête de liste euh, départementale nekk fële ci géejuwaay euh, bu aar Sénégal moom lañ fiy dalal Adji euh, ñu ngi lay nuyu di am mbégte kontaante dalal la fii suñu émission sans filtre ci réew mi FM ñu bàyyi la nga nuyoonteeg bokk auditeurs yi lay déglu. waaw asalaamaaleykum waa mi ñoo ngi lay nuyu madame Faye di la jaajëfal ci invitation bi. Uh, di nuyu auditeurs yi ak auditrices yëpp yi nga xamante ne ñooy teewlu émission bi. waaw Adji Diogop yow euh, boo ñu doon euh, présenté wu boo doon wax auditeurs yi ak auditrices yi lay déglu kan mooy Adji Diogop euh, ak son parcours ba yegg si fii tey. waaw loolu dinañ ci sawar a wax man maa ngi tudd aji Diogop Ndiaye dëkk Géejawaay. nekk ba quartier bu ñuy wax amoo deux j'ai atteint les trentaines comme ni ñu koy waxee je fais partie des plus jeunes gens investis comme tête de liste et je suis man maay ted de liste bi nga xamante ne maa fi gën a tuuti âge ci réew mi yépp loolu mu nekk une aubaine pour la jeunesse une aubaine pour une femme comme moi mm. waaw man nag euh, daanaka Euh, dama nekk ci euh, collectivité territoriale yi foofu laay servir et maa ngi fay servir en tant que directrice des affaires financières une jeune comme moi ñu jox ma responsabilité bu toll nii lépp lu nga xamante ne mooy gafagu euh, commune bi ma nekk sama loxo lañ ko teg lépp lu nga xamante ne dépense la luy génn sama loxo lañ ko teg. Mhm. waaw daanaka sama présentation loolu la. Mhm. te euh, daanaka li ma indi ci politique nag euh, xanaa. bàyyi xel seen politique bi gis fi ay nit yu nga xamante ne dañoo mat royuwaay mhm. te mu nekk ambition bu ma yàgg a nourrir je me plais à le dire tàmm naa di ko wax servir sama réew servir sama dëkkuwaay dafa mos a doon lu nga xamante ne daf may dundal daf may motiver servir nit bu yàlla sàkk daf ma mos a nekk lu may dundal luy ñëwaat di ñëwaat la ci samay kàddu di ñëwaat ci samay wax waaw loolu moo waral suñu implication politique yàlla dogal ñu dajeek ay kilifa yu mel ni Cheikh Oumar mm-hmm. tey jii suma duggee coalition Aar Sénégal Sénégal ba tey jii ñu mën ma woolu ba def ma tête de liste yàlla ak moom la moom moo xool jeunesse bi moom moo nekk ko nga xamante ne coach jeunesse bi daf ko ñor coach les femmes daf ko ñor mm. loolu moo waral tey jii sama atterrissage comme tête de liste de la coalition Aar Sénégal à Guédiawaye euh, kañ nga dugg yow ci politique mën naa wax ne sama dugg ci politique euh, carrément peut je pourrais dire que que ren la ren la ren la pour ma ni ma impliqué woo carrément c'était surtout durant les locales même je peux le dire euh, Aïssata Tall Sall sama marraine de promotion la woon euh, mu nekk jigéen bu nga xamante ne dafa ma mos di motiver dafa ma mos di doy ci ni ma koy gisee degré d'engagement ba ak yooyu mu tax ma intéressé wu ci chose politique bi intéressé wu si incarné benn leadership bi nga xamante ne moom mu ko nekk di ko incarné même si tey jii bokkuñu ay jëmukaay parce que tey jii bu ñuy wax aar Sénégal aar Sénégal opposition bi la fi nekkal c'est une opposition rationnelle une opposition digne bu nga xamante ne tey jii dafa taxaw pour lépp li nga xamante ne Sénégal ñu ngi ko doon jooy ci assemblée nationale ñu fexee taxaw am fa taxawaay bu rafet ba sénégalais yëpp diñ ci ci suñu représentation fier ci ñun suñ taxawaayu fale ci assemblée nationale waaw. Aar mhm. Sénégal ñoo la tànn wala yow yaa choisir Aar Sénégal. waa mën naa wax ne Aar Sénégal tànn nañ ma certes parce que tamit bu ñuy def investiture mhm. dinañ xool profil yi. Mhm. profil profilage doo jóg a jóg rek ne da ngay tabb nit. Mm-hmm. kilifa yi nga xamante ne ñoo ma wóolu ba indi ma. ba jiital ma am na lu ñu gis ci man donc tànneef am na foofu waaye ma it tànn naa leen lu tax ma tànnaale leen ndax li tax ma dugg ci ba impliqué wu dama si gis ñu nga xam ne dañ ma doy mm-hmm. waaw suñu profil yi fa nekk yépp à commencer par Cheikh Oumar nga xam ne mooy suñu leader mm-hmm. kooku moom duñ ko présenté te ci douzième législature bi gis nañ taxawaayam bu rafet bi mu fa amee waaw ku ci mel ni naka noonu Cheikh euh, euh, Thierno Bocoum moom tamit ci douzième législature bi gis nañ taxawaayam il était primé meilleur député à l'Assemblée nationale ci douzième législature suñu tête de liste Thierno Alassane Sall il n'est plus une personne à présenter euh, kooku nga xam ne bi nga xamante ne ne euh, bi mu nekkee ministère de l'énergie dem nañ bay nekk di jéem a signer ay ay ay mbir yu nga xamante ne narul nekk arrangement wu réewam. Mm-hmm. dafa bañ carrément démissionner de cette de cette euh, gouvernance mm-hmm. bu sous Macky Sall toujours léegi ku mel ni juge Dème moom gis nañ ko fi moom tamit il a démissionné de la magistrature te am na benn adage bu courant bu muy utiliser mu ne il a démissionné d'une magistrature qui a démissionné kooku taxawaayam tamit ce plus à Euh, rappeler aux Sénégalais ku ci mel ni Marème Soda Ndiaye gis nañ ko mu nekk ku jàmbaare mu nekk ndaw mu am taxawaay assemblée nationale di fa yëkkati ay kàddu yu rafet di fa yëkkati ay kàddu yu mature kàddu yu nga xamante ne tey jii moom lañu war a xaar ci bépp jeune bépp jeune femme bu nga xamante ne dafa engagé wu dans la scène politique ku ci mel ni Théodore Montey waaw ku ci mel ni docteur Abdourahmane Diouf Théodore Monteil moom mu ngi ci législature treizième bi et il fait partie des meilleurs députés docteur Abdourahmane Diouf tamit il n'est plus à présenter aux Sénégalais ñëpp gis nañ durant campagne bi sorti yi muy def yëpp vraiment mu ngi touché électorat bi mu ngi touché nit ñi on voit des témoignages sur Facebook partout nit ñi ni ñiy appuyer contribution moom en tant que ex DG de SONES gis nañ taxawaay buy rafet bi nga xamante ne jéemoon na ko indi ci réew mi ba bañ ndox mi nga xamante ne moom lañ joxe fële foofu lañ doon joxe géejawaay ni mu insalubre woon. Mm-hmm. ñooñu donc seen taxawaay rafet na xeetu rafet bu nga xamante ne tey jii. waaw ñooñu même buñ ma choisiree man it choisir naa leen choisir naa leen ndax seen implication ndax seen engagement ndax bëgg seen réew ndax seen patriotisme waaw looloo waral Euh, certes aar Sénégal choisir nañ ma waaye man it ñu ma doyloo lañ. Mhm, doyloo lañ yow nga nekk euh, tête de liste départementale euh, bu aar Sénégal foofu ca Géejawaay gis nañ concurrence bi foofu nee na Fatoumata Tall moom la Benno investir Ahmed Aïdara coalition Yewwi Askan Wi ak wallu mbir mu narul yomb ci yow foofu ci Géejawaay waaw macha allah narul yomb certes parce que bu ñuy wax ñu nga xamante ne ñoo ma jiitu ci politique ñoom la certes ñoo ma jiitu waaye parfois aussi il faut nit ki engagé wu. nit ki jëf lu tax peut-être population bi di ko wóolu te ñoo ngi ci ñoo ngi jéem lu ñu mën di jéem a def suñuy proximité. parce que tey jii pour être proche de la population pour que population bi boole la sa wet il faut que nga jug. dem ñu xam la te ñoo ngi ciy jéem di def suñu partition comme niñ ko mënee te je ne suis pas sur la liste je suis avec du Aw kooku tamit dafa nekk nit ku nga xamante ne dafa am taxawaay bu rafet fële ca géejawaay ba tax tamit waa aar Sénégal leader yi fa nekk wóolu ko boole ko ak man certes ça sera un défi pour moi ma war a jànkoonteeg Néné Fatoumata tataal te euh, teg aussi ay dara waaye dama gëm ne dañoo war a jàppanir jàppale jeunes yi dama gëm ne dañ maa war a soutenir yóbbu ma assemblée parce que Néné Fatoumata Tall elle est déjà ministre elle est déjà sous la gouvernance de euh, de Benno Benno la bokk en fait elle est militante à Benno te elle est ministre déjà am na casquette bu nga xamante ne doy na ko sëkk pour mu war a mën a prouver quelque chose de concret bien que tey ji députation leneen la waaye man je me que ne euh, moom elle n'a plus peut-être quelque chose à prouver wala elle a suffisamment quelque chose qui devrait lui convenir lu nga xamante ne doy na ko pour mu war a mën a liggéeyal réewam mm-hmm. donc Euh, su ma jëlee kaaw ay dara moom sama concurrent la man je peux dire que Néné Fatoumata Tall mooy sama adversaire mais ay dara sama concurrent la parce que ñun ñoo bokk opposition bi dañoo war a xool nan la ñuy def euh, pour li nga xamante ne moom mooy nekk fii di xew ci réew mi moom la peut-être moom la ñuy dund ak euh, euh, magistrature Macky Sall nu mu fi dañee donc Ahmed Aïdara je le vois surtout comme un concurrent mais certes un concurrent à défier ku may défier la parce que moom it am na lu ko doy moo ngi yore lu toll ni mairie de la ville de Guédiawaye donc loolu rek charge la responsabilité yu doy la ba ñu war ñoo mën a wóolu ku ci mel ni Mamadou Aw ku ci mel ni man ñu jiital ñu yóbbu ñu assemblée ñu prouver wane ne que Aar Sénégal am na jeunesse am na ndaw am na jigéen yu nga xamante ne dañoo taxaw temb te dañoo bëgg seen réew. Euh, yow treizième législature bi ban jàng nga gis euh, di seen député yi seen liggéey parce que coow li bari woon na xeex yi xuloo yi. tey euh, demoon na ba euh, nekkatuñu ay référence ci biir dëkk bi ndax treizième législature bi vraiment li mu jur ci coow ak xuloog xeex euh, lu jéggi day en tant que ndaw yow ban jàngat nga am ci treizième législature bi. waaw li xew assemblée nationale moom xam naa ne du jar ñu koy rappeler parce que ñëpp gis nañ ko fa xeex wayeeg ay mag yoo xam ne dañuy mbéjanteeg dañuy dóorante majorité mécanique bu nga xamante ne duñ fi def lu dul. lu ñu leen indil lekk duñ xool li nga xamante ne mooy dëgg-dëgg bëgg-bëgg sénégalais yi ndax quoi qu'on puisse dire même s'ils sont partis au niveau de l'Assemblée nationale avec des bannières différentes avec des bannières à à à soutenir. Mmh. tey jii buñ fa demee ñoom ils sont allés là-bas par les sénégalais par l'électorat sénégalais te ñëpp gis nañ treizième législature bi liñ fa def daanaka pendant cinq ans yi nga xamante ne moom lañ fi toog yëpp benn proposition de loi lañ fi génnee. daanaka proposition de la boo xam ne c'était pour criminaliser vraiment en fait l'homosexualité et ça n'a pas abouti donc juste pour diir que assemblée nationale li fa xew man su ma ko xool man damay damay amaale lu ma métti parce que ñooñu ñoo censé être suñu roykaay ñoom ñoo war a taxaw foofu di xeexal yi di xeexal mag ñi di xeexal ndaw ñi di xeex pour bëgg-bëgg sénégalais yi waaye ñoom boo gisee seen toogaay defuñ fa lu dul di xeex ay xeex yu partisan moom lañ fay gën a sentir te loolu la aar Sénégal namm dindi looloo tax mu proposé ay point yu bëri jagleel ko assemblée nationale en tant que tel fonctionnement wam ak efficacité bi nga xamante ne moom la population bi war a xaar ci ci ci ci ñoom yaa ngi wax efficacité tey pour nekk un bon député lan nga jàpp ni mooy profil bu meilleur bi ci nit ki waaw pour être un bon député man je suis certes instruit mm. am naa benn niveau euh, d'étude par exemple bu ma war a mën a permettre tey jii responsabilité yenn yi buñ ma ko joxee ma mën koo àddu waaye man dama gëm ne assemblée nationale du yenn niveau d'études yi forcément moo fa war a mën a yóbbu nit parce que on va là-bas pour représenter la population te représenter population moom danga war a wane ne danga bëgg sa réew donc pour être un bon député il faut que ñu sentir sa patriotisme il faut que ñu sentir ne que yow mii vraiment citoyenneté mu ngi ci yow bëgg sa réew mu ngi ci yow loolu c'est c'est c'est primo aussi pour Euh, nekk un bon député il faut que nga am compétence yi mën nga bañ a am yenn niveau d'études yi yenn degré d'institution euh, d'instruction yi mm. waaye tey jii war nañ mën a def de telle sorte que assemblée nationale dina fa nekk dina am ñu nga xamante ne dinañ nekk même si ñi fa nekk amuñu yenn niveau d'étude yi mais dina am ñoo xam ne dinañ leen accompagner de telle sorte que seen liggéey dina rafet dinga am yenn degré de compétence yi loolu tamit c'est vraiment important même boo jàngul dinañ xam ne yow wàll wi nga nekk di fa exceller yow yaa ngi fay bay sa waar parce que du ñëpp ñoo mën a nekk ci bureau yi du ñëpp ñoo mën a toog ci biir bureau climatisé yi am na ñeneen ak ñeneen ay sénégalais yu jàmbaar yu nekk feneen ak feneen fu dul bureau yi mm-hmm. di servir seen réew dignement donc pour un bon député il faut que nga bëgg sa réew il faut que nga safoo sa réew il faut que nga am ay compétence yu certain aussi. Mhm. c'est vrai bëri na 165 euh, députés la ñuy euh, bëri na bëriwul mais di nga gis ay députés yoo xam ne kenn du leen xam ay députés yoo xam ne mësuñu def sax benn proposition de loi. ay député yoo xam ne vraiment amuñu benn njëriñ pour askan wi lu dul dem comme ni ko maître la Hadji doon waxee nelaw ak tàccu moom la ñuy nekkee assemblée nationale. yow façon bi nga xam ne ni moom la ñuy élire député est-ce que doy na la est-ce que du parfois mooy tax ñuy élire ñoo xam ne mérité wuñu seen place ci assemblée nationale. waaw man nag je dirais que cette responsabilité dama koy jox d'abord les partis ñi nga xam ne ñooy investir kooy investir ci ca ci sa liste danga ko war a saytu saytuwaat ko. mu doon nit ku ko mate nit ku nga xamante ne boo ko yóbbuwee foofu du doon ko nga xamante ne day dem rek ne nekk naa député nekk naa assemblée nationale maa ngi fayeeku changé naa peut-être beneen cadre de vie et autres donc responsabilité bi d'abord dama koy jox ñi nga xamante ne ñooy tabb nit ñi ci liste yi bu loolu weesuwee euh, toujours ci parti yi ñoom it ñu dugal ci bopp ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen di tabb ñoom ñoo ko ñoo ñoom la ñuy tabb ci di leen investir si liste bu ñu demee aussi ils sont là-bas pour représenter la population mm-hmm. ci noonu laay ñëwee ci ki nga xamante ne moom lañ def député kooku nga xamante ne dañ ko def député moom tamit dafa war a def loolu ci boppam que ne il n'est pas pour ay euh, parti wala pour ay faraw waaw dafa dem pour représenter réewam te donc dafa war a am taxawaay bu mucc ayib bu nga xamante ne bu ko defee dina kit ak conscience am si lépp lu nga xamante ne voté na ko si lépp lu nga xamante ne loi de finance dina ko fa voté si lépp lu nga xamante ne contrôle gouvernemental bi nga xamante ne député yi war nañ koo am ci euh, euh, ministres yeeg ministères yi ñooy ak yooyu dinañ ko waree donc conscience bi ça doit être individuel te conscience bi aussi parti yi am nañ ci wàll. Mhm. voilà euh, tey euh, gis nañu ndaw ñi euh, ils ne sont pas assez représentés au niveau de l'Assemblée nationale booy xool benn député Adja Marème Soda kese lañ fa am te il a fallu que kële dem feneen pour ñu jox ko sa place. Mm. tey est-ce que faute bi duñ ko incomber au parti politique parce que mosoon naa di waxtaanee benn ndaw ko am ne am na plus de quarante cinq ans nekk ci parti politique mais nee na du ñu may jeunes yi chance ñu exprimer wu boo waxee ñëwee la même à 45 ans yow dañ leen ne yow ndaw nga dama nga toog sa tour ñëwagul est-ce que du est-ce que foot bi tey bu ñu demee ba jeunes yi amuñu une forte représentation au niveau de l'Assemblée do donte conseil national de la jeunesse moom loolu moo nekkoon xeexam ñu am au moins 30 euh, pour cent euh, ci assemblée nationale est-ce que foot bi jugewul déjà ci parti façon bi nga xam ne bañ ne ko parti boo dem wala coalition day am commission jeune commission jeune pour lan. waaw dama dama gëm benn wax bu suñuy leader damay dégg si benn suñuy leader coalition bi di wax mu ne ni ñu defee instaurer parité comme loi noonu la ñu war a instaurer jeunesse bi aussi loolu mhm. seen imprégnation ci liste yi mhm. mu doon lu effectif par des lois mhm. moom dafa gëm ni moom Cheikh Oumar Sy dafa gëm ne bu ñu defee homme femme dañoo war a def jeune et pourquoi c'est très raisonnable parce que jeunesse bi ñoo nekk plus de 70 pour cent de la population donc bu dee ñoom ñoo ëpp ci population bi ñoom seen représentative yi dafa dafa war a effectif dafa war a doon lu concret te loolu comme ni nga ko waxee madame fay loolu daanaka parti politique yi ñoo ci am d'abord une responsabilité ñoom ñoo war a wóolu jeunes waaw ku mel ni waa Aar Sénégal ñoom ils ont tenté le coup wóolu nañ jeunes yi mais espérons que population bi aussi dinañ wóolu jeunes yi loolu mooy wax bi te jeunes yi tamit nañ war nañ ñoom tamit nañ am taxawaay. yéen a ko war a liggéey ba jeunesse leen tamit. effectivement effectivement ñoo ko war a liggéey mais xam nga Sénégal moom dañoo baaxoowul di confier jeune loolu si suñu ay. si suñu ay coutume la booy seet sax d'habitude yenn responsabilité chaque ah, fois sage lañ koy jox sage dañuy wax lu sage mhm. certes sage dafa am solo waaye baax na tamit ñu jiital ndaw ñi comme dañoo ëpp ci réew mi mhm. te réew mi ci seen loxo lay mujj baax na ñu jiital ndaw ñi te mag ñi coaché leen mhm. mag ñi yiir leen mag ñi topp leen naan leen ah tey jee tànk bi doxee nga ko waree koo doxe kàddu bii génnee nga ko wareewoo ko génne waaye bu dee mag ñi amuñu conscience boobu tamit jeunes yi lu ñu am am volonté te propulsé wuñ leen tamit loolu du sotti donc pour loolu war a mën a dañ est-ce que ñun waa Aar Sénégal bu ñu demee au niveau de l'Assemblée nationale lu ñu proposer une loi allant dans ce sens bu nga xamante ne dina permettre parti politique yëpp képp kuy defati listam di investir boo investiree mag góor investir jigéen na la leer ni jeune moo ci war a topp mhm. pour jeunes yi am une une large représentativité une large représentation au niveau des des des de l'Assemblée nationale par exemple mhm. effectivement gis nañ aussi ci local yi bëri woon na jeune ñi nga xam ne ñi ngi woon ci liste yi tamit pour nekk maire mais tel n'est pas le cas ci élection législative yi on se demande fan la problème yi nekk bariwul jeune tey nga xam ne investi ngeen leen yow exception nga ci nga nekk tête de liste départementale fële ca Géejawaay fi nga xam ne concurrence bi euh, doy na fa waar lan lan lan nga jàpp ni mooy cause bi. waa loolu moom xam naa ne. dañoo war a delloo si xel yi rek dafa war a am une conscience bu bu prise de conscience bu ñu war a am rek xam ne que dañoo war a impré imprégner jeunes yi loo xam ne ci seen loxo la war a mujj nañ leen ko teel a jox man loolu laa gëm. te Aar Sénégal am na lu mu ci joué man je ne suis pas la jeune la seule jeune au niveau de Aar Sénégal Marème Soda Ndiaye dans Aar Sénégal Marème Soda Ndiaye euh, am na Awa Ndiaye elle est de Richard Toll elle jeune comme mois 30 ans euh, Binet Ndoye elle sur la liste nationale elle est jeune comme moi am na yeneen jeunes yu nekk ci biir ay bambataal ñu xam naa leen maa ngi jëflanteeg ñoom bëri na tey jii Aar Sénégal jeunes yi nga xam ne da leen propulsé te boo xoolee bu baax a baax suñu liste yi li nga gis ne jeunes yi am nañ ci une représentativité activité bu bu extraordinaire léegi nag loolu regain de conscience boobu ñi nga xamante ne ñoo nekk ci partie aussi ñoom ñoo ko am ñu war a am te jeunes yi aussi ñu taxaw carrément taxaw wane ne ñoom dañ leen war a aussi jiital c'est ça mhm. voilà euh, tey aar boo leen euh, amee majorité parce que loolu mooy seen bëgg-bëgg ngeen am majorité à l'Assemblée nationale Euh, lan mooy doon seen mbëbët pour askan wi seeni proposition waaw Aar Sénégal nag euh, dafa nekk une coalition bu nga xamante ne elle se veut être une alternative parce que tey jii gis nañ ne euh, ni ñuy bañee Macky Sall am troisième mandat noonu la ñu a bañee assemblée nationale ñu amaat beneen mandat. parce que ñoom seen deuxième jeex na. donc man je me dis dans la logique bi nga xamante ne je me dis ñi ñu koy bañalee Macky Sall lañ leen ko war a bañalee ñëpp ñi nekk assemblée tey jii te ñu promouvoir leen def leen ci ay liste ñooñu dañoo war a xool nan la ñuy def bu dee ñoom seen. taxawaay yenn wul woon maanaa ci assemblée nationale bi ñooñu bu ñu leen bu ñu leen soutenir donc euh, tey jii ñun on a 14 points moom lañ jël tënk ko proposé ko sénégalais yi ne lii bu ñu demee yi dinañ ci def suñu kéem kàttan proposé ko. Mm-hmm. ba nga xamante ne réew mi dinañ ci gis seen seen taxawaay. 14 mm-hmm. points yi nag euh, ñu ngi nekk yu nga xamante ne d'abord dañoo. leen di méngaleeg euh, assemblée nationale fonctionnement am premier point bi mooy fonctionnement assemblée nationale ñëpp xam nañ ne assemblée nationale dañuy voter budget nit ñi te ñoom duñu voter seen budget mm-hmm. loolu yëpp manque de transparence la loolu yëpp c'est des c'est des c'est des défauts c'est des défaillances au niveau de l'Assemblée nationale mm-hmm. te loolu dafa nekk lu ñu ñor muy benn ponk bu ñu jagleel fonctionnement de l'Assemblée nationale am na beneen ponk bu ñuy wax efficacité parlementaire tamit Euh, parlement bi ñoo ngi leen di euh, jox ay budget et autres mais est-ce que ñoom seen action bi nga xamante ne moom la ñu war a am ampleur bi nga xam ne moom la ñu war a am voter loi yi comme il se doit contrôler euh, gouvernement bi est-ce que ñu ngi koy def léegi loolu moo waral pour pallier ci yooyu loolu moo waral ñu ñu jël un point aussi Euh, réforme euh, jagleel ko wàllu efficacité parlementaire on a un autre point ki est la redevabilité parlementaire bu ñuy wax redevabilité parlementaire ñu ngi koy waxee surtout ci euh, député bi moom taxawaay bi nga xamante ne war na ko taxaw demaat dellu ci population bi yëgal leen ne ah yéen a ma joxoon essence yéen a ma joxoon salaire bii léegi man nii laa ko defaree durant trois mois def naa lii am naa euh, euh, objectif tel man ci wala nii laa ko defee redevabilité boobu mooy dem taxawaat ci kanamu askan wi di leen rendre compte. Mm-hmm. donc point boobu dafa nekk lu essentiel ñun ñu boole ko ci contrat de législature bi. Mm-hmm. à côté nous avons la rationalité parlementaire gabegie bi bi fa am yooyu yëpp c'est des points yi nga xamante ne c'est essentiel ñun dañ ko incorporer ci contrat de législature bi proposer ko Sénégalais yi pour assemblée nationale ñu redorer blason au niveau euh, national. tey jii mooy li ma wax ci premier point fonctionnement bi ñoo ngi vote ay budget ñoo ngi voté ay loi de finance et di voté ay budget ministère te xamuñ ñoom seen budget voté wuñ ko mm. yooyu yëpp xamuñu kees bi nga xamante ni ñu ngi koy alloué wala fonds yi nga xam ne ñu ngi koy alloué euh, assemblée nationale naka lay demee yooyu yëpp c'est des points yu nga xamante ne pour des soucis de transparence et de rationalité parlementaire mm-hmm. ñun dañ ko boole mu nekk ay points yu essentiels ñu jagleel ko assemblée nationale à côté de ces points yooyu nga xamante ne euh, quatre premiers yooyu assemblée nationale lañ ko gën a jagleel mm-hmm. ndax taxawaayam yeesaat fii bët bi ko sénégalais di xoolee ne nekkeewuñ fa lu dul tàccoog yëkkati loxo. Mm-hmm. loolu ñu changé ko euh, il y a des points yu nga xamante ne ci politique publique yi lañ ko gën a mm-hmm. accès. Mm-hmm. waaw parce que aussi quand on vote des lois c'est pour que ces lois yu mën a influer ci deveniru sénégalais ñu mën a influer ci dundu sénégalais ñu mën a influer ci nekkinu sénégalais loolu moo tax. nous avons des des points comme le patriotisme économique ku wax patriotisme bëgg mooy bëgg sa réew waaw tey jii économie bi dañoo war a privilégier les sénégalais les nationalistes. Mhm. te loolu moo waral ñu indi point réforme majeure boobu tuddee ko patriotisme économique. Mhm. nous avons après le système éducatif système éducatif bi ñëpp gis nañ ne tey jii suñu cours histoire yi jaar nañ ci ñun ñëpp madame mhm. Faye. li ñuy gën a jàngoon mooy histoire France histoire yeneen pays révolution Chine nag révolution <laughs> waaw dañoo bëgg mu changer dañoo bëgg certes baax na nga xam histoire ñeneen ñu parce que mm-hmm. loolu moo lay tey permettre nga am une certaine ouverture mm-hmm. d'esprit mm-hmm. parce que on ne vit plus en autarcie réew mi tey jii ku bëgg suqaliku il faut que nga dem ci ñeneen ñi nga am ouverture mais nag sa doom réew da nga koo war a xamal boppam te pour mu xam boppam dafa war a xam histoire am du euh, cette nécessité de de changer vraiment le système éducatif ñu jël suñuy histoire ñu mel ni ñoom la jor Diop ñu mel ni ñoom Seydi Hadji Malick ñu mel ni ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ne dañoo participer ci histoire Sénégal ñu jàngal ko suñu ndaw yi ndax ñu gën a xam suñu bopp waaw Euh, bu système éducatif bi weesoo am nañ point bu essentiel bu nga xamante ne ñu ngi ko tuddee doomu daara tey jii euh, gis nañ daara yi foofu tamit ay ndaw ñoo fa nekk ay ndaw yu nga xamante ne dañoo mérité compassion dañoo mérité ñu faale leen te système mu euh, école coranique gi aussi dañ ko war a defaraat looloo tax ñu jagleel ko point wane ne vraiment ñi nga xam ne dañoo nekk ci daare tamit am nañ solo ci suñuy bët à côté de ça nous avons un point que l'on a accordé au personnalités au euh, aux personnes à mobilité réduite waaw seen ay chance ci administration beeg yëpp ñu promouvoir leen loolu dafa am solo tey jii newul ne da nga handicapé rek ba waroo mën a euh, excusez mois du terme mm-hmm. da nga euh, war a am ay dañ la war a limité daal. Mhm. ci say ci say wala nga war a dem di yelwaan voilà voilà nekk ci mbedd mi di yelwaan et autres. waaw ñooñu pour jox leen seen chance ñu xam ne carrément dañoo bokk ci réew mi te dañoo am solo si réew mi dañ leen jagleel point. Mhm. ñoom euh, à côté de ça nous avons la gouvernance foncière. foncier bi xam nga ni ñuy joxe droit de propriété yi suñ première déclaration euh, deuxième déclaration du mois bi ñu defoon en groupe defee woon nañ ko fële ca aéroport euh, Léopold Sédar Senghor foofu commencé nañ fa di fa dagg-daggee suuf si mm-hmm. te kenn amu ci dara lu leer donc ñu ngi koy commencé joxe ndax def nañ ay bornage ak yu mel mm-hmm. noonu te yooyu yëpp c'est des chose à régir dans ce pays suuf si ñëpp ñoo ko bokk buñ koy joxee dañ koo war a teg dans les règles de l'art ñëpp amandoo ci wàll mais du duñu jël benn parti bu infime ne ñii ñoom ñoo moom suuf si waaw te tamit euh, foncier bi xam nga loyer tamit am na ci waar mm-hmm. am na ci wàll loyer bi aussi dañ ko war a xoolaal location beeg yooyu tout ça c' est des termes à revoir nga xamante ne contrat de législature bi di ko ñëw di ko ñëw indi nous avons aussi la souveraineté alimentaire comme point essentiel la régulation la citoyenneté diaspora diaspora bi moom ñëpp xam nañ seen implication ci réew mi tey jii masse d' bu bu bu bu bu rëy mu ngi jógee extérieur di dugg ci fii di yéegal suñu produit euh, intérieur brut bi PIB bi te loolu nag dafa soxla benn encadrement dafa soxla ubbi ay kees yu nga xamante ne dañ koy jagleel ñooñu ñu ubbi ay programme yoo xamante ne suñu doomu réew mi yi nga xam ne dañoo génn réew mi tey jii nga xamante ne bëggatuñu sax ñëpp si réew mi parce que gis nañ politique publique yi nu mu demee mm-hmm. ñu joxaat leen courage joxaat leen détermination ñu dellu si ci réew mi ñëw liggéey réew mi parce que Sénégal bëri ay potentialité yu nga xamante ne nekkuñu ci biir réew mi ñoo ngi génn te fu ñu dem wane fa seen bopp ñooñu dañoo war a mën a ñëwaat ci réew mi def seen partition si réew mi mm-hmm. dernier point muy développement durable développement durable tey jii dafa nekk lu nga xamante ne c'est essentiel parce que tey jii la le développement se ne se limite plus aux agrégats économiques ay PIB ay IDH et autres tey jii bu ñuy wax développement dañoo war a xalaat avenir bi nan la développement bi nan lañ koy defee de telle sorte que jeunesse future bi dina ñëw am ñoom it taxawaat bu am solo dinañ leen bàyyil euh, euh, euh, devenir bu nga xamante ne dafa dafa nekk lu nga xamante ne dafa dëgër te pour cela il faut que ñu ñu jël développement durable boobu ñu jël ko jox ko benn sens bu bu bu am solo daal bu bu am dayoo léegi loolu moo nekkoon point yi nga xamante ne vraiment Aar Sénégal proposé na ko population bi pour tey jii assemblée nationale li nga xamante ne moom la war a am taxawaayam bi nga xam ne moom moo fa war a am. mu mhm. am ko fa te comme ni nga ko waxee dañuy ñaan am majorité bu ñu ma amee majorité dinañ mën a former benn gouvernement. Mhm. gouvernement boo xamante ne sénégalais yëpp dinañ ci gis seen bopp. voilà mm. am na solo euh, seen 14 chartes yi nga xam ne moom ngeen a proposé ay point la euh, yëpp ñoo ci am solo di fàttali mbokk auditeurs yi nga xam ne ñoo ñu prendre en cours seen émission espace ngeen di déglu ñu dalal Adji Diogop Ndiaye nekk tête de liste départementale euh, Guédiawaye Aar Sénégal moom lañ fi dalal sànq wax nga ay point itam yi nga xam ne vraiment am na solo ay loi yi nga xam ne bëgg ngeen ko proposé mais Sénégal gis nañ fi député yi yàgg nañ di voter ay loi yoo xam ne ay loi yu am solo la ay loi yoo xam ne tey buñ ko appliqué woon fii Sénégal euh, dinañ bokk ci dëkk yi nga xam ne daal jaar yoon la dëkk bu am loi mais malheureusement da ngay gis dañuy voté loi bu ñu paree day mel dañ koy ranger tiroir yi daal di fàtte yooyu le loi amul topp amul suite amul dara yow noo gisee loolu le fait que ñuy voté loi ba pare range les documents dans les tiroirs application du am dara du am. waa loolu assemblée nationale ñi fa nekk ñoo war a jël seen ay responsabilités parce que suivi évaluation si seen liggéey la bokk contrôle action gouvernementale tey si bu ñu voté loi après kan mooy agir. kan mooy agir ñun bu ñu légiférer kan mooy agir c'est le gouvernement ñun bu ñu toppee gouvernement bi li nga xamante ne voté nañ ko dinañ ko mën a saytu xool ndax lii portée bi mu war a am ci population bi dina ko am donc loolu assemblée nationale ñoom ñoo war a jël seen ay responsabilité te bu ñu votelee aar Sénégal gëm naa ne responsabilité yooyu nga xamante ne moo gàlloo ci seen mbagg ñun dinañ ko jël te dinañ ko taxawee ndax bokk na si suñu ay point yi nga xam ne dañ ko proposer Sénégalais yi mmh. tey euh, ma wax ci jigéen ñi sànq dama ko brosser euh, jigéen ñi seen implication ci langum politique day mel ni euh, on est très limité dans les partis politiques limité euh, parce que duñ leen confier peut-être yenn responsabilité yow mi nga xam ne yaa ngi ci biir lan moo tax tey jigéen ñu bëri mënuñu percer dans le dans la politique la plupart da ngay gis meeting bu amee jox leen ay tissus jox leen xaalis ñu dem ñëw ñëw juste pour feesal meeting bi fay leen bu paree ñu dem. waa loolu nag jigéen ñi ñoom ñoo war a def seen prise de conscience ñoom ñoo war a xam ne dañoo nekk. Euh, Euh, couche bu nga xamante ne ne dañoo am solo ci réew mi ndax gis nañ jigéen ñi seen taxawaay ci réew mi ñun bu ñu téyee suñu loxo ci kër yi kër yi duñu dem bu ñu téyee suñuy loxo ci yeneen ak yeneen du dem ndax tey jii dañoo dañoo nekk ñu nga xamante ne dañoo incontournable donc ñun ñoo war a jël taxaw teem taxaw suñu ay responsabilité jël ko pleinement te assumer ko pleinement certes tey jii bu ñuy wax organisation ci meeting et autres tey jii li ci jigéen mën mhm. du yomb góor mën ko ci nañ ko organiser nañ ko jël organiser na mu waree nag mhm. avec une belle parcimonie et autre mhm. def ko ba mu rafet waaye tey jii bu ñu organiser bu ñu waree téye micro wax ak nit ñi nañ ko jël wax ak nit ñi parce que bu ñu taxawul wanewu wane suñu bopp nit ñi duñu wóolu ba ñuy jiital donc loolu moom j'en fais un appel à tout les femmes leadership féminin boobu ñun ñoo ko war a incarner ñun ñoo ko war a doxal te ñun ñoo ko war a taxawee matee ko ñun ñoo war a wane suñu bopp te war dëggal suñu bopp surtout comme ku mel ni man man tey dañ maa jox ay responsabilité jiital ma géejawaay loolu nag pour mu yemb ñun man dinaa jël samay responsabilité waaye ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal liggéey bi tamit dañ ma cee war a jàppale mm-hmm. donc loolu euh, regain de conscience la parce que am na loo xamante ne kenn mënu cee forcer nit nit da lay bëgg jàppale mu jàppale la mm-hmm. euh, tey jii loi parité bi mu ngi fi mm-hmm. nee nañ fu benn góor taxawee jigéen na taxaw jigéen yooyu nag comme loi bi teg na ko fi ba tey ji bokk na ci ay liste yu nga xamante ne dañ leen kale ci biir euh, parrainage bi. Mhm. faute de parrainage euh, parité la. Mhm. donc jigéen ñooñu nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci liste bi ñoom ñoo war a dëggal seen bopp ñoom ñoo war a wane seen bopp. Mhm. voilà parce que la loi elle est là donc ñun ñoo war a taxaw daal ñoo war a taxaw. vraiment voilà. loolu en ce cas est-ce que kon yaakaar nga parité bi daa war a yem kese ci assemblée nationale est-ce que waruñu ko gën a élargir. waaw man moom dama gëm ne muy góor muy jigéen responsabilité bu nga xamante ne taxaw na rek ñu gis ne jigéen moo ko gën a mën góor nañ ko ko jox. Mm-hmm. loolu mooy dëgg responsabilité bu taxaw it ñu gis ne góor bii moo ko gën a mën a jigéen nañ ko ko jox. waaw nañu jàppale jigéen yi nañ taxawu jigéen yi parce que nag ñun dañ koo jar tey jii boo xëyee suba teel boo gisee marché yi ni muy mel. Mm-hmm. di nga gis ne jigéen ñi ñoo fay ëpp. loolu c'est des entreprises c'est des petites entreprises te loolu jigéen ñi ñoo am taxawaay boobu gis nañ suñ taxawaay ci réew mi ñoo ngi ci biir kër yi di régler ñoo ngi ci biir bureau yi di jéem man je suis directrice des affaires financières la où je suis daaf loolu xam ngeen ne yombul nekkul lu yomb nekkul lu simple waaye maa ngi ciy jéem di ci bay sama waar maa ngi fa depuis 2018 di prouver di wane ne vraiment que man responsabilité boobu ñu ma jox man matee naa ko te koy jéem te loolu vraiment bu ma ko mateewul woon xam naa ne bu yàgg jël nañ seen liggéey ba delloo ko xool keneen ku ñu koy joxe donc loolu tey jii ñun ñoo war a dëggal suñu bopp ñun ñoo war a wane suñu bopp. Mm-hmm. te ñu ngi ci nag parce que tout le temps ñoo ngi wane que la femme elle a une valeur exponentielle dans la société sénégalaise macha allah donc ñu gën a taxaw rek. Mm-hmm. vraiment am na solo euh, ñu del dellusiwaat rek ci campagne bi euh, déjà presque une semaine. Euh, ñuy entamé presque deuxième semaine mu war a des une semaine ak lu tegal gis nañ violence bi ni mu ñëwee invité wu ci campagne bi euh, donte président Macky mu ngi doon dànkaafu dès le début contre le recrutement de nervi c'est vrai dégg guñu ay nervi mais violence bi commencé na notamment yow fi nga nekk Guédiawaye euh, mu doon loo xam ne diggante opposition ak pouvoir tey Sénégal ndax war nañu mën a toog rek pour lu tax Sénégal mënul def campagne sans violence mën a ñëw invité wu ci. waaw loolu c'est des choses que l'on déplore violence moom baaxul fenn ndax li mu mën a jur bëri na violence mën na indi ay bakkan yu rot. violence mën na indi lu ne daal lu ne mën na ko indi jëye bu nekk donc c'est des choses que l'on déplore ñoo ngi def surtout un appel un appel euh, à tous ceux qui participent Euh, durant ces élections-là tout ce qui participe dans ces élections ñu jël seen ay responsabilité def de telle sort que ñu wax ak seen ay militants ba ñu bañ indi violence ci ci ci mbir mi parce que dëgg ji dëgg ji mooy dinañ dem élection yi dinañ dem voté ji population bi dinañ voté ji donc nañ xool neneen nu ñuy séduire population bi nu mooy nu dul indi violence boo xam ne mm-hmm. du ko jar après ñun ñoo ci perte ñoo ci perte suñuy alal ñoo ci mm-hmm. perte suñu bakkan rot ci lu ne mën na cee xew surtout un appel je lance surtout un appel euh, aux acteurs politiques nañ woote jàmm nañ ko jëfee ndax Sénégal loolu moo fi xaj coupe du monde bi coupe d'Afrique bi plutôt moo fi mujj rek gis ngeen nit ñi ni ñu boole wooweel nekk benn loolu moo indi tey jii ñëpp bëggandoo coupe bi ñëpp séntu ko ba mu ñëw fi ci jàmm loolu yëpp ci kaw jàmm lañ ko defee bañ am lu ñu bëgg donc tey jii mën nañu woote euh, mën nañu woote ay élection ñu dem ci ay élection def ko si jàmm le meilleur gañe ku nga xamante ne aussi nu mu fay gañe population bi nañ bàyyi xel ci ñi nga xamante ne ñoo leen di jox ay proposition yu concrètes mm-hmm. ñu mën leen représenter mm-hmm. problème. am na solo parce que euh, Sénégal moom bu ñu nee campagne rek fii ci du toog ndax violence bi gis nañ li fi xewoon daaw Kër Massar euh, diggante gëm sa bopp ak benn bokk yaakaar ñu taal këru benn responsable politique mu doon phénomène boo xam ne ñu ngi koy déplorer te di ñaan yàlla euh, extrémité yooyu mu bañ a am ci élection législative yi de puisqu'on parle d'élection gis nañ tamit Sénégal élection bu amee administration bi da ngay gis lépp day bloqué di nga gis ay directeurs généraux yoo xam ne dañ leen investir ci ay liste te nga gis ay ministres yoo xam ne dañ leen investir ci ay liste du coup directeurs yooyu société yu ñu jiite euh, du ma tudd tur pour ne pas faire de pub bëri na si da ngay gis day indi ay lenteur administrative au niveau des ministères aussi ñëpp dañuy dem defi politique te le plus souvent dañuy utiliser moyens yi nga xam ne état bi dañ koy utiliser à côté opposition bi moom amul ay moyens obligé dem defi ay euh, quête ci campagne campagne de collecte de fonds euh, inégalité boobu am Sénégal fii bu ñu nee campagne yow naka nga ko jàngatee après nga ñëw door ñëw ci lenteur administrative bi. bon inégalité boobu yombul comme ni nga ko waxee parce que bu ñuy wax élection il faut des fonds parce que la personne doit se déplacer la personne doit aller voir les gens te pour loolu tey jii di nga ut say casquette di nga ut say t-shirt di nga ut say flyers di nga say spécimen c'est des fonds te loolu jàpp naa ne Sénégal war nañoo mën a am maturité politique bi nga xamante ne opposition bi dañ leen di jagleel ay fonds yu concret mhm. fonds yu effectivement euh, ñëpp ñooy am. le même même effectivement effectivement effectivement loolu c'est un souhait. c'est un souhait que j'exprime parce que tey jii. lépp daal Sénégal mu rafet moo ñu moo ñu ñor Sénégal mu baax moo ñu ñor Sénégal mu prospère moo ñu ñor. Mm-hmm. donc que nit ki nekk opposition wala mu nekk parti au pouvoir vraiment ñi fi nekk dañoo war a am responsabilité boobu dañoo war a am conscience boobu xam ne comme Sénégal moo ñu ñor donc ñëpp lañ war a outiller. te loolu c'est des lois à mettre en œuvre c'est de choses à mettre en œuvre et puis à suivre après à évaluer mm-hmm. ñu suivre ko concrètement teg s'il le faut sax ay ay mesures de répression bu ñu ko respecté wul quitte à le faire mm-hmm. lépp rek nag ci kaw jàmm lépp ci kaw Sénégal yemb lépp ci kaw Sénégal jëm kanam mm-hmm. maintenant am na point boo ma soulevé tout à l'heure lenteur administrative yi ndax euh, directeur généraux yi mm-hmm. ministre yi ñu jàpp di leen investir nga dem euh, soxla dara mm-hmm. benn entreprise nga dem ñëpp dem nañ campagne te campagne ku ne xam na day yàgg mm-hmm. trois semaines du benn jour peut-être sax poste de directeur général ça sonne moins grave mooy poste de ministre ñu def la beneen fonction élective man loolu gisuma solos bi parce que ki nga xam ne moo la nommé fonction élective moo ko fi teg donc tey jii kooku nommé la euh, euh en fait concrétiser sa politique donc benn instant mooy li ma la wax tout bi ma lay wax par rapport au défi que j'avais de vraiment d'avoir de des des adversaires comme Néné Fatoumata Tall mhm. là où je suis ñooñu am nañ lu leen doy tey jii bu ñu ñëwee ne la jëlal lu toll ni ministère de la jeunesse nga gérer ko gérer jeunes yi li nekk ci jeunesse bi yépp ni mu bëree emploi beeg ñoom seen xam nañ ne ñun loolu la ñuy jooy ñun jeunesse bi mhm. emploi bi moom la ñuy jooy parce que vraiment dafay manqué dama lay wax une petite anecdote démb damay def porte à porte nit ki ma ñëw di wax ak moom mu ne ma s'il te boo ma mënee utal liggéey mm-hmm. donc lu toll ni ministère de la jeunesse kooku mu nekk jeune wax ma loolu mm-hmm. kooku je me am na lu ko doy ministre yi am na ñu leen doy donc ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoo nekk ci seen ñoo ñooñu leen war a jël xool nuñ leen di promouvoir parce que lenteur administrative yooyu day sonal nit ñi rek sonal population bi tax réew mi tamit mu taxaw. Mm. te tamit réew mi taxaw amul solo ñun réew mi mu dem kanam moo ñu moo ñu ñor donc tout ce qui est ministre et autres man je yi dis personnellement ñooñu dañ leen war a génnee ci di leen tab di leen def ay député. Euh, maire yooyu moom ça sonne vraiment euh, député plutôt ministre ça vraiment mal. Mm. ça sonne vraiment loolu moom. autorités yi ñoo ci war a jël seen ay responsabilité mm. buñ ko jëlul tamit ñi nga xamante ne ñoom lañ dénk ay responsabilité gouvernement bi bu ko jël assemblée nationale mu ngi fii ñoom lañ mm. jël ay responsabilité proposer ay loi yu nga xamante ne day aller dans comme ça vraiment liggéey bi gën a mën a yem. mais euh, moyens yi ñuy jël utiliser aussi di ko defee campagne yow ban jàngat nga ci am parce que seeni voiture la ñuy jël ak yeneen ak yeneen loo xam ne gouvernement moo ko moom te loolu la ñuy demee di base campagne ñoom directeurs généraux yi ak ak ministre yi. ah c'est des choses que l'on pour peut que l'on ne pourrait que rek dañ koy déplorer waaw euh, loolu moom c'est c'est des c'est des c'est des c'est des choses surtout personnelles parce que tey jii am na lu nga xamante ne bu ñu la ko joxee ñu jox la essence ñu jox la oto. ne la lii pour liñ la jox responsabilité yi ñu la jox mu yemb la du pour politiquer. loolu nit ki moo war a am conscience personnelle am mu xool li nga xam ne moo yenu maanaam mu mhm. jëfee ko mhm. vraiment mhm. aji daanaka six minutes moo ñu desal yow tey euh, lan ngay wax jigéen yi nga xam ne ñëw lay déglu ak ndaw ñi jigéen nga ndaw nga aussi euh, bëgg nga dem représenter leen parce que tey bu ñu gisee benn aji ci assemblée nationale euh, dina mel ni ku nekk di nga gis sa bopp ci aji mi nga xam ne moo toog assemblée nationale te askan wi jeunesse bi ak femmes yi surtout la fa toogal loo leen di wax. comme j'ai l'habitude de le faire rek damay def un appel de soutien. vraiment parce que man moom sama investiture c'est un défi que l'on lance à la jeunesse et que l'on lance aussi man en tant que jigéen tey jii ñu def ma tête de liste à Guédiawaye mm-hmm. loolu c'est une chance chance boobu nag kan moo ma ko war a mën a jàppale wala ñan ñoom ma ko war a mën a jàppale mooy ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi nga xam ne jigéen laa comme ñoom te xam naa li ñuy dund su ngoon guddeek bëccëg te ma am yéene su ma demee assemblée nationale lépp lu nga xamante ne ne dina jox gëdd jigéen dina jàppale jigéen ci bien-être am ma fas yéene ko fa taxawee fas yéene ko. Euh, proposer au niveau de l'Assemblée nationale di defaale aussi un appel à toutes les femmes di defaale aussi un appel à la jeunesse aussi mm-hmm. ndax tamit man je suis jeune mm-hmm. donc c'est à la jeunesse de me soutenir c'est à la jeunesse de ma promouvoir mm-hmm. ñoom ñii tey ñoom ñoo mën a tax tey jii ma dem au niveau de l'Assemblée nationale représenter leen dignement et je pense avoir cette dignité là et les compétences requises pour mën a dem au niveau de l'Assemblée nationale taxawu leen mm-hmm. voilà donc je lance surtout un appel à la jeunesse et à toutes les femmes voilà Euh, seen euh, spécimen bi naka la mel nga jéem ko expliquer un peu rek euh, ñi nga xam ne mooy auditeurs yi lay déglu pour jour bi parce que am na ñoo xam ne mën nañ dem ba foofu di jaawale ay spécimen mm-hmm. waa spécimen bi nag daanaka <laughs> dafa dañ cee bind aar Sénégal mm-hmm. Aar Sénégal Aar avec deux A et puis un R alliance pour une assemblée de rupture mu ngi am baobab bi garab bi nga xamante ne dafa am ay feuilles yuy wadd waaw tête de bi moom moo ci nekk image moo ci nekk muy Thierno Alassane Sall les couleurs prisées sont le blanc blanc bi mooy fond bi Euh, mauve moo ci nekkaale ak bleu en même temps moo nekk ci spécimen bi mhm. kon spécimen bi euh, en tête bi République du Sénégal la habituellement moom la ñuy def. Euh, sa côté gauche bi moom moo am ba baobab bi côté droite bi am kanamu Thierno Alassane Sall mi nga xam ne moom mooy suñu tête de liste. Mhm. voilà. Mhm. en tout cas euh, ñu am mbégte kontante dalal la euh, ngay ndaw ñu lay souhaiter bonne chance euh, parce que c'est pas évident vraiment concurrence bi concurrence bi elle est rude surtout foofu géejawaay c'est pas facile mais ñun dañ lay encourager d'abord di la wax bonne chance di la félicité itam ndax courage bi nga am dem ba dugg ci. ci euh, kii bu partie bu mel ni Aar Sénégal voilà surtout ñu def la tête de liste foofu ca Géejawaay ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw kàddu tàggatoo yi cant ak ngërëm la rek sant la yow bu baax invitation bi parce que tamit euh, jeunesse bi pour ñu xam leen il faut que ñu promouvoir leen. Mm-hmm. il faut que médias yi jàpp ci il faut ñëpp jàpp ci. et donc di la remercier ci sa partition bi macha allah di remercier waa réew mi yëpp seen groupe bi yëpp di remercier seen PDG. Mm-hmm. waaw di sant aussi ñi nga xamante ne ñooy suñu ay kilifa yi nga xamante ne ñoo nekk aar Sénégal mm-hmm. wóolu ñu ba jiital ñu. di sant aussi waajur yi mbokk yeeg am ni jàmm yi euh, politique bi daanaka euh, mën naa wax ne euh, am naa ci référence bu doy mooy sama papa parce que dafa nekk nit ku nga xamante ne il était au niveau de l'éducation nationale te mu yàgg di participer waale ci seen politique beeg yooyu donc moom je lui fais un clin d'œil lui ma maman et puis toute ma famille à Hamo ak waa quartier ba yëpp waa Hamo 2 ñoom tamit dañoo fas yéene taxaw tem mm-hmm. jàppale ma propulsé ma incha allah di leen sant bu baax di sant mbokk yi am di jàmm yi xarit yi ñëpp ñi nga xamante ne daal vraiment dinañ ñu reconnaître ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax macha allah. Mm-hmm. salaamaaleykum. Mm-hmm. merci beaucoup Adji Diogop euh, Ndiaye mooy euh, tête de liste départementale Guédiawaye Aar euh, Sénégal di ko gërëm bu baax ci invitation bi di gërëm mboole mbokk déglukat bu ñu doon bàyyi xel jamono ji di gërëm Bachir Cissé mi féete ci technique gi mbokk yi di leen jox di daje mercredi bii di ñëw même heure même fréquence ak beneen invité.